kon su ñu ñëwee indi teraangam fi ñaan nii daan mu fekk faam di wax ak man di jël teraangam di ko jox ci jëmm ji toog su ma ñëwee ci xewam bu ma joxee teraangam du ma ko waaw waaw waaye Adja bu gaawee ñett. yàlla ko yàlla téyel boppam. bul tiit bul ragal. jëlal yëkkatil di joxe ñu jox suñu yaay. coffret yëkkatil ñëpp gis. Rama dafa joxe coffret bu cher. tubarkalla macha allah. benn coffret tegal ci suuf tegal ma nii tegal nii. ana Mor. waaw kay. Mor nuyu naa la ñetti yoon. kuy nangu. tubaarkàlla. Oumou Ndiaye waaw war naa mën a ne. ñaari coffret. ñaari coffret muy ñett. muy ñetti coffret lépp ngi ci yaa ngi dégloo. lu si jëm. danaa war a randu si nii de. waaw sori nga de. dànd nga ma lool de. tubaarkàlla macha allah. man de Mor li ngay xool tey laa xamul lu doon. ay Fatou Gueye. tubarkalla macha allah. ana Mor. centre yaa ngi noonu. lu nekk ngi ci broderie. jasmer. ana Mor. bu bu 300000 yaa ngi foofu nekk ngi fa. ana beneen ñëw na. defal ndànk defal ndànk meer. lii ay chemise de la. ndànk rek xale lañ koy jox te xale bi yàqul boppam dégg ndayam taxawaaluwul newul ci dend bi di sam salaatoo soobal ba dem na kaw liggéey la xam ñàkk a jëriñu tubarkàlla ndey kay yoor kay sama xarit nga démb tey doogu ñëw su ma la fekkee ci mbili bi nii yow ak bennoo dama la ñuy nuyu seeni papa boo jinne tubarkàlla chemise de nuit macha allah ah waaw waaw yow lii ngay joxe sa jeeg jàng foofu sa njëkk yi kan nerewu la kay jépp yi la bàkku jamaa jamaa la ko jox sëgal say ko jamaa la ko jox laaj ko biisu booni xam na ma man maay kan alkoofre yi borode yi vivi simis tubaar kii mama yaay na bu rama un million un million ci na bii ilaha illallah attention attention c'est quoi ça c'est quoi ça ndànk froda ngi jege bu dimanche laa ilaha illallah oh. bu dimanche dina gën a rey si pax bu dijj bi <laughs> si pax palaat bi tey foo génn nii yow tey ah nga génn fees nga ñu yóbbu daal ci jaar Casablanca noonu lay demee Mor. ndeysaan allah mais waa fees maa ngi lay ziar waa yaa ngi ci jàmm allah shukran shukran tajine poulet ah namatuma tajine poulet dajin poulet ak dajin viande macha allah mais boo macha allah macha allah yal na yàlla barkeel sëy bi yal na yàlla boole seen jikko boole seen wërsëg mais leen njaboot bu barkeel maa salaam love you so much kenn da xam kenn xamu ko ah, lii lan la ma li xaw ma poète la xaw ma demee ni daal ñaata perlage nga def ni Viviane lii lan la ñaata perlage ça c'est des milliers et milliers de perlage macha allah non gis naa chignon bi gis naa de côté bi macha allah allahumma amin love you so much Vivi mongoog Clara Zeynab Zeynab Clara Madame allah oh macha allah. mais waaxa fóot from Gambia mais kalaawaay dina bajaan moo la a téye cinquante boobu ba léegi maa ngi lay mais kalaa maa ngi lay wante gisuma love love you love you so much mais ne bajaan ki ne New York moo jóge di ñëw ci xew nii ak Kiné Arlem nga jóge dañoo ci xew bi macha allah ça c'est la la famille proche. suñu jigéen boobu ba léegi dafa leen dara waaye tey dama bëgg ñu baaram mbay daal di faroo jar. macha allah ceebu jën ndax nag Ibou Mbaye oh. vraiment ñi ngi kontaan bu baax a baax a baax xam ngeen ne tey dañuy àggali li nga xamante ni moom la ñu Youssou waay li fi xew samedi ku ne gis na ko. macha allah waaye Viviane nee na doyul. dëgg la pour teral doomam. ndeysaan ndax xale bu sagal ndeyam teel yaaja da koy teral teel. dëgg la ñaaxarañ loo. xamoon naa ne doo wute. wallaay ndeysaan. l'ami de tout le monde. dëgg la le sénateur du peuple. l'homme des grands événements. dëgg la programme bi nag dañ koy respecté tàmbali ko ci li nga xamante ni mooy animation. gërëmee ko sa ndey du ko dindi si fi la yàlla may mbokk ndeyu Clara Zeynab Serigne Dora Gaye Clara doomi yaay tabaski jaaw bila racine notre c'est notre chérie de valeur ministre madame Diop Sedi Kosso maa jot ngeen seen carte. Adama Bey mooy joxe carte yi mu niru la yoon mu niroo mu ne Adama Bey lan la la wax nga ne. <laughs> suba damay sañse xam nga loolu. incha allah amosa daf may solal lu garaaw ma ñëw. te samay tànk ku fay nekk suba Viviane. Youssou Ndour Sidi Diop ak Wally Seck voilà suba moom incha allah vous allez voir du feu à tout à l'heure monsieur madame Eden Eden groupe Eden ñoo ngi vous êtes magnifique <laughs>